والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام بلن يو تامل وقتان بي تي ندقلو السن بي دفع من يو قمنا ني دنو آه بقون نيوم لغي بي كين كسخ نكون جوري ني لغي بي مي شخنا مبين باكي yàlla na ko yàlla yokku leer ci ñi fi nekk jaboot gi fi nekk yàlla teg ci loxo ba liñ bëgg liggéey sëñ Touba ñu liggéeyal ko euh, ak euh, xalifa général des mourides na si daaw doon nañ ko sant ci aw turam sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke néewu fi moom it dañ ko war a ñaanal bu demee ba Tiwaawan euh, sëriñ Cheikh Tidiane Al nagan ci daw fekkoon na ko fi waaye fekk ko fi tey ñoom ñoom ñëpp nu fas leen ñaanal yàlla yéegi leen ca maqaama yu kawe ya yéen yóbbu leen fer daw firdawsi ñi fi nekk ñëpp yàlla taxawu leen ba liñ bëgg a lis liggéey lislaam ñu liggéey ko jataay bi nag ni mu toll ki ko wootee ni toll muy sëriñ Abo kon sëriñ bi Euh, noo ngi lay nuyu ca di la sant ca di la ñaanal yàlla guddal sa fant lool ba li nga bëgg a liggéey sëriñ Touba nga liggéey ko noonu murid yi dañoo xër lool bu ndikkee ne sëriñ bi ñaanal nu képp waaye nuyu nañ koy ñaanal ndax nit bu amee loo xam ne lii bu jaaxlee ci mu la jëm na koy ñaanal mu yàgg ci kanamam jimiñ mu ngi mënut a weesu diw mët la ñaanal kon ñun ñëpp nañ maaso ci ne sëriñ Abo yàlla na fi yàgg ba li mu bëgg a léegi sëriñ Touba mu liggéey ko ndax kat ku ma saan fekke jotaay bi ci fanweeri at ci gannaaw tey jii nga teew da nga xam ne sëriñ Abo liggéey na ci euh, Daaru Salaam liggéey na ci Deali liggéey boo xam ne bii am na tàmbali waaye amut mu gaay ñun lu mu bon bon bon màggal nañ ko fi juróom fi kat kon xam nañ nam daan def tey jii kenn mënu wax na kii murit la tey jii. kenn mënut wax kii tijaan la tey jii kenn mënut wax kii xaadir la kii kii pël la wala séeréer la wala tukkulóor la ñëpp ñu ci gannaaw sañ ab cheikh abdou ñu ngi ci gannaaw sëñ abo ca dara war lu kat lu dul ñaar yi socialam ak diplomatie ñaar ñu yoon adduna ku leen ñàkk mënatoo am dara sëriñ bi boo ñëwee yëg gim lay yëg da nga yaakaar ne yow dong dong dong la safoo loo ko laaj lu mu am dara la ko jox secrètement kenn du ko yëg soo amee soxla lam ca mën dana ko def lam ca mënul danga xam ne mënu ko kon sëñ bi nii nga taxawee ñii nga taxaw ci kanam ni yàlla na yàgg lool yéen ñëpp ngeen ñaan loolu bu ko defee waxtaanu du gudd ñiy wax ci koo xam ne kii moo Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké et Cheikh Mouhamadou Moustapha nag bu waxtaan moom lu yomb la waaye lu jafe laa ndax injaazaat li ngay xam ne moom la liggéey ci diir bu gàtt bi nga xam ne moom la fi nekk 27 ba 45 mu liggéey fi liggéey bu rëy waaye liggéey bi nag ya ci gën a ñetti point la dañ koy junj rek wax ci ñaari jukko yoo xam ne yii sëñ Modou Moussa ju jukko woon na ko bu ko defee ñu tëj waxtaan wi jox kii bi ndax man na am am nañu ñibbu fu sori sëriñ bi sëriñ bi dénkoon na ko ne ko su ma fi jógee nag ma yóbbu. Touba nun mouride dañ ci yokku ci touba duma ti mais lolou muta nek ndax señ résidence la nekkoon waye diplomate su señ fexé na ba waxtan nak touba bi ndax kéro bim gaño eh, ki nga xane mo nek touba bi ci ca daaru ca ñaareem la wo mu ñew mu tim ko bam defal certificat dese ne wor na ko ne ki gaño na mu soko jox digal mu yobbu ko Touba mom mu dess joxe ñu indi ko ñu denc ko Touba kon ben ndigal ba ngoog def nako secrètement and ak diplomatie and ak social and lepp mu indi ko Touba ñaaral bu moy samp yoon wi ba nga xamne euh, ki wara a dina jiitu katcha top top ca ba ni yoon mi ni fiñ tollu kenn du laaj kan moy khalifa kenn du laaj kan moy khalifa ñu profito occasion bi rek euh, di ñaanu sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lol ci wér ba lim bëgg liggéey Touba mu liggéey ko kenn ko ak mom kenn ko ak mom ndax kat am na lu sëñ Blaat di wax icaxal boo gis wala nga dégg sëñ Touba wax ko mooy defal nu wala may nu ba mu ko jaar daan wax ah sun borom jox na ko ko waaye nag ka koy réalisé yàlla nañ bokk ci ña koy réalisé yàlla nañ bokk ci ña koy réalisé ci loolu ñaan yooyu sëñ Touba doon ñaan ànd ko sëñ Mountakha cam yàgg fi loolu ci biir sëñ Modou Moussa njabootu sëriñ Touba gi kenn ku nekk mu am la fu mu la samp nga bëgg a taxaw eh, dañuy wax ne soxna May mu Serigne tubaa moom la sëñ Modou saa njëkk a tàggu ne demee wàccu bu liggéey muy mbir mu tiis benn bis la nekk ak moom ca Touba Serigne bi toog nii mu toogee nii soxna si toog ni ci basan gi sëñ Modou Moustapha jekki-jekki nelaw nelaw yàgg mu yeewu ne ko soxna si xanaa jaaxle nga mu ne ko waa Mbàkke mu ne ko dañ maa defal loolu dañuy wax kasu. kasu moy lan wuññi la loo xam ne lii découverte loo xam ne lii ñëpp duñ ko gis waaye yow ñu gis loolu ko mu ne ko sunu borom damaa xamal ne ma damay dem sunu borom damaa xamal ne ma nag damay dem loolu nag muy lu historique ndaxte sallallahu alayhi wa keroog bi nga xamee ne mu ngi waaj dafa woo Fatima ba mu ñëw mu nekk ko Fatima sunu borom yónnee na fi tànn loo ma ma dem ak ma toog. dem àjjana wala ma toog ci àdduna bañ a faatu faago waaye ma tànn dem àjjana Fatima génn jooy mu waat ko ne ko Fatima yërëm naa la ci wéetaay bi waaye du ma yàgg nga fekk ci ba juróom-ñaari weer képp laa lay rawee Fatima génn di fecc di fecc di fecc nga koy gis keroog bi nga xamee ne en sëñ soxna sëñ euh, sallallahu alayhi wa wàcce na ma woo ko ne ko waaye doom yow de dama gis ba sa baay nekk ci wàccaay bi mu woo fa moom nga génn di jooy mu waat la nga génn di ree lan moo waral loolu mu ne ko li ko waral mooy damaa tàggu ma yërëm sama bopp ci wéetaay yi mu waat ma ne ma wéetaay doy ak juróom-ñaari weer képp la ma ma kontaan xam ne wéetaay juróom-ñaari weer dara kon sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, la njëkka a tàggu waaye sëñ Modou Moussa Tim soxna May la njëkk a tàggu ni ko tàggoo ba ko xam ne ko damay dem soxna si ni mel ni ko ku jaxasoo mu ne ko soxna si bu jaxasoo yàqutuma kat sa doom gis naa doomi Mourtala mu sëñ Mourtala ma mu ne ko doomi sëñ Touba de kenn du ko samp waaye sëriñ Cheikh mii sama doom ñi Gaynde Fatma danañ ko samp mooy tukkee ba mu tukki ànd ak sëñ Cheikh ko àdduna ci kon kon ah, ma maa ngi kii sax maa ngi guddal fi mu toll mu def mu wéy daal di daal di wàcc daal di méttoo di métti bàyyi sëñ Abo mi moo ñëw sëñ Cheikh Gaynde Fatma biñ ko wooyee tindoo di la ko fekk. mu ñëw mu ñëw seet ko daal dem sëñ am sa daal ne sëriñ am sa yow de bi seet nga gis sëñ Touba damaa bëgg doomi sëriñ Touba jee bëgg a wàccu liggéey nga jël sama ruugi jox ma ko jox ko ko lere sama fan man ma dem nopp li ji moom ma jël liggéey sëriñ Touba moom mu dem liggéey li sëriñ Touba gaynde faanu moo waxoon loolu keroog mu wax ko ñaari yoon keroog ba muy dem bàyyi baara jël ja muy ba Abdou ja keroog moom la àndal sëñ bi sëñ sëñ sëñ am sadiku boo liggéey booy ñëw bu ànd kenn ñetteel ba mu ñëw sëñ bi sol mbaxanaam sol daalam ñëw fekk ko maa ngi jéggulu ci daal yi ma mbaxan yi ma sol ci kanamu sëriñ bi ee eh, maa ngi jéggulu baax a baax a baax ee eh, mu daal di waaw mu daal di sa ànd ak am sa daal di ñëw daal di fekk sañ Cheikh daal di gis sañ Cheikh daa ne ko sëñ bi sëñ sëñ bi di ko xool bu njàgg mu ne ko loola sëñ loola Cheikh loola Cheikh wax mu ne ko Cheikh sëñ Cheikh da nee na ma yow de gannaaw bi sën nga gis Serigne Touba daa bëgg li des ci aw fanam nga jox ko ko yàlla yàlla yàlla yàlla eh, yàlla yàlla guddal aw fanam yow nga moom moom dem nopp lañ mu ne ko Cheikh la wax loolu daal di jóg keroog taw jële mi métti métti dafa jóg. danako ko cheikh al xoloon mu ne ko mu ne ko cheikh di amona ci mu yakar waaye yakar ji gën naa yok gaynde abo serigne abo sa bay keroog non la ko serigne Modou Moussa wax mu daal di wàcc bu liggey wàcc gam mu liggey ji indi ko Touba denc ko fa mo waral bis bi ñi di ko magal ndax kat lu ma am solo ndax yonit yonent bi daan wax allahuma ijal ayami ayaami al alxaaka fihi yàlla def ma sama bis bis bi may daje gëna bi gëna bax ci man gën a neex ci moom mooy bis bi may dajeeg yow kon euh, sëñ Modou saa def loolu daa def ñetti réalisation yi ñu ko def yëpp indi na sëñ bi ci Touba waa ko sëñ Touba yëpp kenn ku ne samp na la mu am nag ñaari jukko yoo xam ne yii il faut nu ko ñàkk a tudd sëriñ bi sëñ Modou Moussa daana wax kilifa wërta wutal boppam làngug noonu ndax ku ko mere dem ca ci bu yàggee kon dañ ko mënal dara sëñ Touba sëñ Modou Moussa wax ne man Mouhamadou Moustapha du ma wax na du ma juum waaye saa yu ma juumee mbooloo juum ndax lan da daan wut ñetti groupe yoo xam ne ay doomi soxna lañ du yëgante bu problème amee kenn ku nekk ñu wax group bu ne wax lan la xew ñaari groupe yi fan ànd mu ñett mu dikk ñettee leen moo tax mu daan wax man sëñ Modou Moustapha du ma war a du ma juum waaye saa yu ma juumee mbooloo juum kon sëñ Abo waxtaan ci sa maam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 yéen mbooloom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Abo mbakki mii toog Gaynde Fatma di Serigne Cheikh Mbacké fii ak mbooleem waa dëkk bi di Daaru Salaam bi nga xamante ne ñoo am mbégte ak ndam di dalal màggal gii nga xamante ñu ngi koy màggal fu ne waaye ñu itam ko ñëw fii xam ne ñu ngi màggal Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké al Karim kon nag ci tur waa dëkk boobu nga xam ne ñoo am honneur boobu ci seen tur laay wax ci autorisation sëñ bi loolu nag ñu ngi nuyu ak di damoo sëriñ bii toog muy sëriñ Abo Mbakke nga xam ne lu nu man tey ak lu nu ñeme tey moo tax ndax ku ne xam na ne mi ngi fii di nu li demul fenn saa boo ko soxlaa doo naan audience da nga ñëw dugg boo ñëwee dana sëñ baa ngi ci biir nga dugg wax si soxla kii laa jëg lépp ku ñëw da nga ñëw fekk ko fi mu faj si soxla nga dellu kon nag ku am loolu ndëgër la mbégte la faw nga fésal ko bu loolu jàllee itam ñu ci teg rakkam ji sëriñ Assane Mbakke nga xam ne mi ngi ci wetu sëñ bi saabu nu sëñ bi soxlaa moom lay ñuy njëkk gi sax balaa kenn ñëw kon sëriñ Assane ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu itam soxna May Mbakke mii nga xamante ne moom la ñuy xoole soxna mbenn Mbakke ndax wax dëgg yàlla dem daa mënta ñàkk waaye ku dugg fee tey xam ne sa xol sedd na ndax soxna Mbène dellusi na lépp nga doxaat wax dëgg yàlla kon ñu koy sant bu baax ak rakkam ju baax ji soxna Assou Mbakke Euh, bokki sëriñ bi nga xamante ne ñu ngi jóge fu ne daaru musti tuuba jóge daaru salaam fu ne ñu ñëw ànd ak sëñ bi bis bii ndax ñun nag ku jóg ngir sëñ bi rek jóg ngir ñun kon nag ñoo ñëpp ñu ngi àndandoo di leen sant di leen gërëm di sant itam mbokki taalibe yi nga xamante ne sëriñ bi lekk lañ safoo fu ne jóge nañ fa ñëw ci dëkk bi dal ci kër yi ca ñoom ñëpp sëriñ bi rek ak wëllëre tax leen ñëw di màggal si bis bi ndax fu ñuy màggal bari na lool ci Daaru Xudoos yaatu na waaye dañoo tànn ñëw màggal si ko ak sëriñ Abo kon ñoo ñëpp ñu ngi leen ñu ngi leen sant ci turu sëriñ bi ak ci turu dëkk bi ndax mënoon nañu dem feneen di sant it bala maa jàll itam nga xamante ne ñooy loxol sëñ bi muy daayira bii ndax nag ñun waa dëkk bi ñoo waroon di sonn di dalal nit ñi ñoom ñoom ñoo fas ñoo àndandoo nekk benn dasu say doon a dem ñu defal ko fa lépp lu sëñ bi waroon kon nag suñu waroon def ñu taxaw fi takku di ko def bala ñoo def dara di leen sant di leen gërëm di leen euh, jaaja jaajëfal ndax loolu itam warugar la woo xam ne waa dëkk bi itam yëpp ñu ngi ci sant di ci gërëm bu loolu jàllee itam ñu sant ñi nga xamante ne ah wax dëgg yàlla ñooy suñu dëkkandoo yi rawatina autorité administrative yi le sous-préfet est là ànd ak euh, son adjoint ànd ak euh, le commandant yabal MDL MDL chef Ndiaye ñu àndandoo ñëw fii ah wax dëgg yàlla foofu bëgg naa cee taxaw lu tuuti bala maa jàll ci sous-préfet ndax euh, daanan ay yeneen jiitoo nañ fi xarabun kenn waaye moom de bi mu ñëwee màggal gi jub si demuñu ci moom sàkk ko moom moo woote ne ñëw leen ñu waxtaan ci màggalu sëriñ Abo gi màggalu Daaru Salaam gi ñu ne ko ah, loolu de wax dëgg yàlla neexati na ci turu aset la ko jaara le maire mu ne nag du ngeen ma fekk ci sagata ndax ñun yee jàll yépp buñ sa dem dañ daa àndandoo dem sagata fekk ko ci biroom mu waxtaan ñoom mu ne nag déedéet man cette fois si man maa leen di fekk si toog leen daaru salaam xaar ma ma fekk si leen ngeen wax lan ngeen bëgg ci màggal gi bi mu ñëw itam mu fekk nu fii ñu wax ko ab liste bu liñ bëggoon loolee ñu bëggoon itam yàlla rek moo man lépp di ko def te defu ko waaye wax dëgg yàlla lam kamtu lay kàttam def na ko ndax lay fernde ji ah mooy wàllu kër docteur ngi nii liñ laajoon muy poste avancé akub ambulance andi nañ ko ci buntu kër sëñ bi yand fi ICP fay am renforcement de personnel ak de médicaments yu jóge ci district sanitaire bu Daara ñu appuyé ñëw si fii loolu jëfi su préfet la. ñu ngi ko ci sant lool ci turu dëkk bi ak ci turu sëñ bi ndax itam wax dëgg yàlla mënoon naa toog këram ne nañ ko fekk si mënoon naa wax itam ne ñi ñeneen feneen di def itam bind ba mu deex ñu dem ñibbi bu bis baa ñu ñëw nii waaye lan waxante woon lépp la ca manu def na ko kon nag ñu ko ci sant di ko ci gërëm. ci loolu itam bëggoon naa tuuti wax itam ci commandant Sar parce que wax dëgg yàlla fers ñi ñu fi indi fii ñu ñëw di ñu sécuriser doonuñu ay gendarme yoo xamante ne dañuy nekk fii pour la répression dañ fee nekk accompagne ñu léeg-léeg itam ay tuuti am fi ñoom ñooy doxal seen bopp avec leur diplomatie bu yàggu dong matu ñeent fan am na fi tuuti coow lu fi am loo xamante ne bi ñu ñëwee ñoom ñoo dox ko lijjanti ko ba mu ne cocc ñu tàppante reyante dem seen yoon kon nag kenn ku ne xam na ne ñi muy yabal fii muy muy euh, personnel bi muy yabal fii ñu sécuriser ñoom wax dëgg yàlla li mu leen def la ko de ndax ñu ngi def plus de conciliation que de répression kon nag ñu ngi leen sant lool lool kon MDLC chef boo nee nga santoon ñu commandant Sarr gis na liggéeyam bu loolu lépp bu koy def day dellusiwaat ci yow rek parce que yow yaay ki nga xamante ne yaay chef yaay commandant lépp lu xew rek ci sa autorité la xewee kon nag lay jaajëfal loolu wax dëgg yàlla bu loolu jàllee itam ñu ñëw ci le maire de la ville de euh, de Déalé euh, monsieur Assette Sow moom itam li ma wax sous-préfet rek noonu la ko ñore ndax moom bi mu ñëwee daa def boppam ab taalibe ñëw ci sëñ bi ne ko man dey ngi nii ñu ne maire wala maay président communautal waaye lu man di xew bala ma caa dem dinaa ñëw waxte ak yow bu ma ci jógee dinaa ñëw rendre le compte noonu mi ko wax woon te ba mu nekk président communautal non, la ko continuer euh, bi mu nekkee maire wax deug yalla CLD bi ci niko organiser la bokk te la nga xamante ne ci doonoon waru garam sous préfet santone koko ci sonu kanam ñu defoon ko sunuy doléance muy éclairage public bi mo dem jël équipe jël ko ci moyam andi fi lampi yi fi lakkoon mu remplacé ko lamp yi fi ni mu dolli ko ci ba wax deug yalla lu fi leer ci mbedd mi rek ginaaw yalla moma kon nak ñu koy sante bu baax di sante tam adjoint bi soxna Bintu di sante également tonton Sémouña di sant itam euh, secrétaire municipal bi wax dëgg yàlla moom itam euh, jëfelu dara ñun ñëpp ñu ngi leen sant ndax li na waroon ñu ngi ko ci def di sant itam mboolem conseil municipal yi nga xamante ne ñoo ànd ak moom baraa nga ne toog ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom ñëw fii ñëw ci bis bi ndax ñun ku ñëw ci bis rek ñun nga ñëwal ñu ciy pokkaréwo bu loolu jàllee itam ñuy nuyu mbooleem chef de village yi nga xamante ne bàyyi nañ seen yitte ñëw ànd ak sëriñ bi bis bii ak mbooleem notable yi nga xamante ne ñëw nañ ci fii loolu yëpp ñu ngi leen di kii di nuyu itam délégation bi nga xamante ne ñoo bàyyi commune bu Touba ndax itam dañuy wax ne Serigne Cheikh ñaare ba muy ba muy samp fii daanaka wane gi Touba la ko defoon ba Touba dox na ba xaw a jege si Daaru Salaam kon nag su nu jógee su suñu jëlee délégation boo xamante ne mi ngi jóge ci commune bu Touba ñëw seet si fii ci màggal gi ci commune du Dialy loolu kon bëgg-bëggu Serigne Cheikh ba mu ngi réalisé wu délégation boobu maire bu Touba yónnee ca ñu ràññee ci euh, Aliou Badara Niang ak euh, son directeur de cabinet Thierno Diakhaté ñu ngi leen sant ngeen sant ñu lu maire la te xam ne bon voisinage ñu ngi koy doxal ci fii ñu ngi leen sant lool ci turu sëñ bi di leen ci gërëm di sant mbooleem ñi nga xamante ne yónnee nañ fii wax dëgg yàlla bëgguma sax jël sant waaye dañ ci ràññee rek euh, le ministre Aly Ngouille Ndiaye wax nañ ko léegi yónni na Moussa ak ñi mu àndal di itam sant sunu mbokkum taalibe ah ki nga xamante ne fii la bokkoon fii la bokk ci ñun këram nekkoon fii mu nekkoon ci feneen ba mu jàgg mu ñibbisiwaat fii ci sëñ bi ne lépp loo xamante ne taalibe yi ñu ngi ci maa ngi ci daayira boobee dama caa bëgg jëndu carte bokk ca lépp lu ñuy def ci dëkk bi ñu dokkata kooku mooy ka mooy sëñ Moustapha Diakhaté di ministre chef du cabinet du président de la république ñëw na fi à deux reprises ñett fan avant màggal gi new te jiit neeroon mi ngi ñëw yónne fi tam ay trangam yoo xam ci daayira bi ñu ngi ko ci sant xam naa waa daayira bi nga xam ne ñoom lu bu ñëwee dañ ci exwaat kon daal loolu moo xam ni nga xamante ne ñu ngi leen doon sant kii mooy ñu wax ak sunu mbokk taalibe yi nga xamante ne ah ñoo jóge fii ñu xam ne nag Serigne Cheikh dafa goroon dëkk bi nag seet ay nit yi boppam ñëw sampal leen fi boppam def leen nit yi boppam ñooñee nag su yàlla dogee Serigne Cheikh ñibbi àjjana ñoom itam ñu fekk ko àjjana ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoonu meññ suñu fulla mooy mébutum Serigne Cheikh moomee ñu jaaroon ko ci suñuy bàyyi ñu fas yéene ba mu yegg ci ñun kenn ku ne li nga xamante ne sa bàyyi ngi foon di ko wagar nga lu mën di nekk nga dellu siwaat fii li nga xamante ne mën nga ko cee wagar ba mébétum Serigne Cheikh moo amoon sunuy bàyyi ñu yàggale ko ko ndax Serigne Cheikh moom li mébétu dëkk bi yàgg-yàgg day am ndax dëkk moom faaw faaw faaw njënd lay mujj nekk waaye waxoon nañ ko mënoon naa mu nekk njënd tout de suite mais dama cee bëgg a jiite sama ñooñ kon ñun ne ñëpp ñi ngi tuddoo sëñ bi di sunuy bàyyi jiitoon fi ak ñi nga xamante ne wëllëre sëñ bi nanu ñëw fii ndax Touba ngi dox di ñëw ca bu ñëwee mën naa am yoo xamante nga naan fee la sama tool bàyyi nekkoon wala fee dëkkoon ci lépp mën naa ñàkk kon yéen ñëpp ngeen góorgóorlu kenn ku ne la nga fi nekkoon nga waggar ko te xam ne sëñ bi moom mi ngi fi demul fenn ndax nii mu def boppam def ko këram bu ko ñun ñëpp defee ñu xam la mébutum sëriñ Cheikh ma nekkoon tënk kon nag bëgguma guddaloo dama doon dalal nit ñi rek ak ak euh, tatagal nit ñi. ak ziar fédération daayira yi muy daayira bi nekk Darou Salaam Darma bi nekk Touba nekk Thiès nekk Louga nekk nag dakaar nekk diaspora bi fu daayira nekk rek ñoom ñëpp lëkkale leen seen kàddu jox ma ko ngir ñu àggale ko. ngi sant yalla bu baax ci li yalla may ñu fekke daaw fekke ren te nga ñaanal ñu fekk at yu bare bare bare bare nga yàgg ci sun kanam ñu ci sa gnaaw kaddu nak du gudd kaddu nuyo rek kaddu santante ay kaddu soñé ñoo ngi nuyu sëriñ bi bu baax bi nuyu sëriñ bi di nuyu rakam suñu jëwriñ sëriñ Assane di nuyu magam soxna May ak rakam soxna Astu di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp gannaaw bi nuyu sëriñ bi ñoo nuyu mbokki boppam yi fi ñëw mbokki mbàkke mbàkkeem yi mbokki sëriñam yi mbokki dëkkandoom yi ñoo ngi nuyu tamit waa administration muy sous préfet fi teew teewal fi sous préfet teewal fi gouverneur ak président de la république di nuyu monsieur le maire mi nga xam ne moom ci nun la bokk di nuyu mbooleem ñi nga xam ne rek ñu ngi ci dëkk bi conseiller bàyyiwuñ kenn di gërëm ñëpp di sant ñëpp sëriñ bi daayira bi nee ñoom de sant nañ yàlla bu baax ci leen yàlla tànnal kilifa gu mel na yow ndax kilifa mënut a ñàkk te boo amee sa kilifa mel ne ne nit doo ca man dara da nga ci topp rek waaye ñun fa tabaarakallaahu ni la yàlla melal sant nañ ki neex nañ ci fu ñu dem mën nañ koo tiitaroo kuy sa sëriñ nga ne sëriñ Abo Mbakke yaa ngi fi ci dëkk bi rek di muñ doylu lool kenn déggu la ci dara. te léegi jamono ku ne nim jaxa ñëpp dégg na nim jaxasoo nga toog fii la sa baay dëwaloon yéen àll fanaanoo àll bindoo kenn lettre yónni woo kenn ci diw na sëñ Abo ne nang képp ku toog sa bureau nit ñoo fa ne sëñ Abo nangam bu la neexee nekk waxal dëgg léegi ci saa si loolu nag kilifa googu ku ko yàlla dénk war ngaa sant yàlla baax moo tax ñoo ngi sant yàlla baax yaa ngi ñëw fii toog fii rek di jaamu yàlla di xaar taalibi di leen soññ ci liggéey ak jaamu yàlla loolu kenn kenn mënu ko weesu. sant nañ ci baax a baax a baax a baax ndax loolu loolu rek lañ bëggoon kon mënuñu lu may di la ñaanal yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla dolli mbooloo mi yal na yàlla dolli barke bi ci barke Serigne seex ñun ñëpp ñu bokk sant yàlla sant sëriñ bu baax mu loolu wéyee ci gàttal sëriñ bi yóbbante woon ay kàddu ci taalibe yi sëriñ bi nee na mi ngi ñuy fàttali di ñu soññi ci li nga xam ne moo tax suñu boroom andi ñu fi mu jaamu yàlla nee na loolu du mi ngi ca fàttali. bu buñ ko fàttee xam ne loolu rek moo ñu fi ndax loolu rek ci lañ mën a amee njëriñal ëllëg nañu góorgóorlu ci farata yi suñu borom wax te lu luñ mën ci sunne sallallahu alayhi wasallam def ko loolu nee mu mi ngi koy def mi ngi sant baax mu ngi digal ñu nekk benn ndax daayira kat looloo tax nii mbubb yi bokkee déguisement yi dafa bëgg xol yi mel noonu cofante bi mel noonu kenn ku nekk jàppe sa bopp ni nga jàppee sa borom loolu moo moo ñuy jëriñ te it mooy mooy noppal bi ndax bu ko defee rek danañ ko noppal sëriñ bi nee na kon góor góorgóorlu ci nekk benn yëgante di dimbalante kenn ku ne lu mu yéene bopp mu yéene ko moroomam sëriñ bi nee ma ngi soññ ci liggéey ndax liggéey rek moo ñuy jëriñ fi ñu nekk àddina ñaar la liggéey ngir jëriñ ci àddina jaamu yàlla ngir jëriñ ci àllaaxira mu ngi soññ ci liggéey kenn ku nekk liggéey ba mu nekk na ca góorgóorlu lam man na ca góorgóorlu da ca men waaye na ca boole sellal ndax sellal rek moo am solo ndax sellal moo indi barke te barke rek moo mën a jariñ nit kon mu ngi soñ ci jaamu yàlla mu ngi soñ ci liggéey mi ngi soñ ci jàppante nekk benn loolu sëriñ bi ne mi ngi koy fàttali bu baax bu loolu wéyee tamit daayira bi ci boppam am na canti boppam yi jéemale ci bokki taalibe yi ci dëkkandoo yi ci autorité administrative yi moor dina ci del sax ak ci autorité politique sant na ñëpp ndax bis bii dañoo jàpp ne képp lu ci waay def rek nuñ nga ko defal lépp nun la waroon lépp lu ci yëngu rek ñun ñoo ko doon yëgal kon lu ci waay jàpp ci dooleem ci alalam ci xalaatam ci lu ma doon rek na jàpp ne ñun yëg nañ ko ñoo ngi ko ci sant ñoo ngi ko ci naan ndax lépp nu la waroon te ñu lott ci lool nag ñoo ngi sant ñëpp ñi doon jàng alxuraan sant na leen baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne bis bi loolu li ci ëpp alxuraan jooju moo ci ëpp solo mooy ñaan gi bi xëyee wàcc nañ ay kaamil def ay berde kon jàng alxuraan yi sant na ñaan yàlla na yàlla def barke ci ñoom ñi nga xam ne mooy ay daayira ak ñëpp ñoo jàpp ci bis sant na leen monsieur le sous-préfet Cheikh sant na ma la répétition est pédagogique dama fekkoon CLD bi sant na lu baax yéene ji nga ci amoon wallaahi wala yàlla mayen kàpp doole ji da dana wees bi waaye nag sant na la ndax am nga yéene jëf nga la nga man monsieur le maire moom léegi kenn dutu ko sant daanaka ndax dafa bokk ci du moo ñu wax waaye nag danañ ko sant ndax nit ki def li ko war rek kooku lañ war a sant sant na la ni nga jàpp ci bis bi ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla jàppale bu loolu ween am nañ mbokkum taalibe Moustapha Jaxate fii kër sëriñ bi nekk moo doon kër baayam waa sa kër baay moo ne bi place bii waa bi ci kanam moo doon kër baayam baay mu gànna jaxati sëñ Cheikh a doon léppam mustafaa nag war nañ koo sant waruñu koo waaye war nañ koo sant nag ndax ki def li ko war rek lay war a sant bis bi jàpp na ci lool de indi na ay teraanga def na jàppale ci daayira bi loolu nag boppam la ko defal ndax moom moomu kañ kañ sëñ Cheikh doomu sëñ Cheikh lañ ko tuddee sëñ sëñ Moustapha sëñ Moustapha borom magal gi lañ ko tuddee kon nag bàyyi fii la nekkoon moom moom di Moustapha Diakhaté ak man miy wax ak yéen ak ñu bari ci mboolo bi lu ñu doon tey sañ Cheikh a tax waaw Moustapha Diakhaté moomu ak man miy wax ak yéen ak ñu bari ci mboolo bi tey jii lu ñu doon rek sañ Cheikh a tax bismillahi rahmaani rahim barkeb xaadimu rasul Euh, Serigne bi ñu ngi lay nuyu ci président Moustapha Cissé nek président du parlement de la CDAO, mais nek également le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal moo ñu fi yabal tay ñu ñëw délégation lim nañ ko légui du jar ñu ci bu ñu nañ ko nuyul ndax lu jiitu loolu mbokkum sëriñ bi la waaye tamit wëllërewu sëriñ bi la te ñaar yooyu yàlla dafa sa dafa digle ñu sàmm ko bu baax a baax kon loolu bokk na ci tax li ñëw teew fii yàlla dafa dogal mu nekk assemblée ñu nekk ci ay liggéey ku ne xam na ne projet de loi boobu ñu doon voté ak ay travaux yu bari yu fa nekk ñu war koo liggéey moo tax ñëwul waaye amoon na yéene yi ñëw mottali kóllëre googu dox ci digganteem ak sëriñ bi ak dox mbokk googu kon dafa waxoon ne bu ñu ñëwee nañ ko nuyul sëriñ bi waaye tamit nuyul ko njaboot gi ndax li mu wax ci sëriñ bi moom la ñëpp wax ndax sëriñ Abo dafa nekk jëmm joo xam képp koo xamante ne si yaa ngi noyyi ci kaw suuf bëgg nga mel ne moom képp ku nekk ab taalibe tamit bëggoon ngaa nekk ab taalibe ndax li mu ko wax ci biir rek ñaar yi dafa bokk ci ñi naw ci nit muy am way jur bu baax ak am sëriñ bu baax te loolu jàpp naa ne Mbàkke mi ngi ci yow te gëm naa ne sëriñ Cheikh Gaynde Fatma sa way jur bu baaxoo bu dellu si woon jamono doo soppi toogaay kon loolu àdduna séppale ci naw sëñ mu Cissé Lo nag nee na mi ngi la ciy sant bu baax a baax ci taxawaay bi am na ku ko junj léegi ne mbooleem luy bureau mosuñu ko faa dégg wala ñu xam soxlaam loolu ku gore moo koy def te loolu seen jur moo ko jëmbat ci ñoom kon loolu ñu ngi la ci ziar bu baax di la ci sant ndax lu tumuranke la ci jamono ji kon ku koy dundal rek war nañ laa ñaanal bu baax a baax te li ëpp solo mooy njaboot yi dañoo jaxasoo ndax moorloo taalibe la ci kër gi waaye tamit doom la ci kër gi te bu bàyyee léppam di ànd ak président Cissé Lo ci politique bu xewlee rek war nañ fee ñëw kon nee na ci kanam mbooloo mi yëpp tamit mi ngi sant Mor bu baax a baax maa ngi nuyu tamit autorité administrative yi fi teew ak euh, le maire de la ville ni ñu ko waxee nuyu également autorité ak euh, euh, responsable politique yi fi teew yëpp waaye Serigne bi daal li Serigne Moustapha Cissé Lo waxoon mooy bu ñëwee nañ la santaat bu baax ndax yow cant rek nga yeyoo ndax ci li nga war a nekk ci nga nekk. yaa ngi jëf tamit li nga xam ne loolu la ñu bëgg ci nit ñu baax ñi kon nee na woon bu ñëwee nañ la sant ci kanam mbooloo mi waaye ziar la bu baax a baax nee na tamit mi ngi sàkku ci yow ñaan ngir li nga xam ne moom lañ koo jox muy parlement de la CEDEAO nga xam ne tey jii mi ngi ciy def ay liggéeyu am solo ku ne xam ne ci wàllu intégration li mu ci liggéey muy libre circulation des hommes et des biens nga xam ne ay ateliers yu bëri def nañ ko ci ba ci tey jii barrière douanière yi nga xam ne dafa dox ci diggante réew yi am na yu am solo solo yoo xam ne ñi ngi ko ci liggéey te bu paree askan wi rek ñoo koy jariñoo tey ñi jógee di tukki ci yeneen réew yi kenn dootu leen sonal ci yenn yi ci diggante ñi nekk ci espace CEDEAO te loolu nee na gëm na ne su ko réussir seen i ñaan dong moom moo tax mu àgg fa kon loolu nee na mi ngi sàkku ngeen ñaanal ko ci bu baax a baax waaye tamit nee na nga ñaanal président de la république Macky sàll ngir yéene ji mu am ci réew mi ak liggéey yi nga xam ne tàmbali ne ko te gëm na ne seeni ñaan rek moo ko fa àggale ngeen ñaanal ko ba mu àggale ko ñu joxaat ko un deuxième mandat mu mën a continuer chantier yi liggéey Sénégal ndax Sénégal li wér te wóor mooy boo ci paree keneen kuy ñëwit da ngay sof continuer liggéey ci te gis nañ ne ay changement am na bu baax a baax maa ngi jéggalu jotaay bi politique sax taxu koo jóg waaye loolu kuy ñaanlu te ñëw fi nga ko yaakaar tamit sañ ngaa ñaanlul ki nga xam ne mu nga bëgg a kon sëriñ bi ñaanalal président Macky Sall ñaanal président Moustapha Cissé Lo ak mbooleem njaboot gi yëpp ñi ngi santaat sëriñ Mor Lo bu baax a baax ndax su ma juumul bi mooy cinquième édition bu ma ñëw fekkee si jotaay bi te li liñ ci jële mooy yokkute waaye liñ ci xam nañ ci Gaynde Fatma luñ ci xamul woon te jotaay moom loolu dong moo koy mooy tax mu am njariñ jotaay boo xam ne saa boo fa jógee dolli ko ci sa diine dolli ko ci xam-xam jotaay boobu jotaay bu am solo kon ñu ngi ñaan suñu borom dëgëral taxawaay bi waaye kàttanal la ba li nga yéen a liggéeyal sa maam yooyu suñu borom defal la ko te nga ànd ci ak njaboot gépp salaamaaleykum wa sëriñ Abo ñëw nañu fii tey fekk si la yow sa rakka sëriñ Assane Mbacke ak waa kër gi ñépp muy soxna May ak soxna Astu li ñu indi li nga xam ne ñun ñun ak waa dëkk bi ñoo ko bokk ku nekk ci ku nekk fii xam na diggante commune bi ak yow ci kaw loolu ci kaw turu commune bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la sant bu baax a baax ndaxte ñun ku ne xam na fii ci deyaali liggéey bi nga xam yow sëriñ bi liggéey nga fii chef de village wax na léegi léegi Cheikh Ndiaye ndax ne nekk nga fii boo boo boor nga ñëpp boole nga ñëpp soo gisee tey ku ñëw fii tey comme ni ko ki wax léegi wax da nga fekk tiijaan nga fekk nga fekk xaadir nga fekk beneen xeet ci xeet yépp amul kenn ku ko def fii lu dul sëñ abu kon sëñ abu ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax a baax di sant ki nga xam ne moo nekk sous préfet bu Sagata Jolof ak délégation ñi mu àndal muy adjoint bi ak ki toogal fi commandant brigade bi monsieur Ndiaye sous préfet ndaxte man ñun dañu taxawaay taxawaayu taalibi fii ci dëkk bi kon yow dañu lay sant ci effort bi nga def ren mooy mooy lan Cheikh Ndiaye wax naka dañu doon jóg fii dem fekk li la sagata jolof nga ne comme que comme que màggal bi suñu màggal la suñu lépp la jolof na def ci war a jël cëram loolu moo tax yow nga ne CLD bi dañ ko def fii ci Deyaali ah dégg ñuy fekki ji kon am monsieur le ci loolu gërëm nañu la sant nañu la bu baax dina gërëmaat encore keroog danga ma woo nga ne ma li màggal bii ak bu sanfaala ak bu ngila li dafay jaadu ñu def ko CDD ñu yóbbu mu nekk départemental mu gën a mu mu mu a jox eh, abis bés bi ciram man ak yi ñoo and bi ci préfet de département de Linguère ñu tok nga won ko li nga xamni ñu ko def ci yeneen dëkk yi fii ci département de Linguère yeeyu na eh, Daaru Salaam Deyaali yeeyu na Samfaali yeeyu na Ngila denga soxla bi yoon su fekkee mu ngi ñëw ak lu mën a xew nañ ko jëlee ci CDLD yóbbu ko CDD kon nag euh, monsieur le préfet ci loolu ci kanam ñëpp ci kanam sëriñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant sëriñ bi li fi nekk tey lii moom ñëpp sa njoboot la muy su ñëpp ñu nekk ci commune Daly yëpp sa njaboot la loolu moo tax tey conseil municipal bu Daly yëpp teew fii chef de village yëpp teew fii kilifa yépp teew fii nekk ci sa wat wet bokk ak yow bés bi nga xam ne bés bu tedd ci ñun la bés bi nga xam ne bés bu rëy la muy màggal ñetti fan ba a baraxlu bi nga xam ne lu rëy ci ñun la ci lu leer fii ci Daaru Salaam deyaali yokkute moo fi nekk lu fi nit mun a def ak ci bépp fànn boo ko mën a def su fekkee defal nga ko sëriñ bi sëñ abo su dewanee yow da nga gis yow a yokkute kon nag ñun li li ñu def fii damay wax rek li arab yi di wax laa shukru alal waajib waaye xam naa ne wa maa bi ni'mati rabbika fa haddis loolu am na waaye la shukru alal waajib lii li ñu def fii suñu war a gàll la dañ ko war a def suñu mënoon danañ def alika e, o ëpp sëriñ bi ci kaw loolu di gërëm conseil yi ma àndal di gërëm conseil yi nga xam ne nekk nañu fii fii ci Daaru Salaam muy sa soxna mu nekk premier arso ñu ngi koy gërëm di ko sant ak ñoom Modou Touré ak ñoom Bas du aussi di di gërëm chef de village bi ndaxte bépp liggéey bi nga xam ne war na liggéey ci côté mairie bi amul kenn ku nekk ci kanam loolu la seex gërëm nañu la sant nañu la bu baax a baax a baax di la war rek sëñ bi lépp li nga xam ne ñun mun nañ ko fii fi ci commune bi muy ci côté lépp ndaxte yow yaa uuf ñëpp incha allah loolu mooy suñu tànk tey mooy suñu tànk suba loo loolu nga di ci ñaanal sëñ bi di sakku ci yow ay ñaan mooy nga nga ñaanal ñu comme li ñu nga ñu doon ñaanal nga ñaanal président de la république Macky Sall ndaxte suñu la suñu la joxee réew seen ñaar moo mun a tax nga jëm réew mi fi nga koy soxlaa kon nag sëriñ ñu ñu ngi la ci ñaanal sëriñ bi aussi di la gërëm bu baax a baax ndaxte sous-préfet bi ma ko waxee mbir mi taxawaay bi mu ci taxawaay am na leneen li nga xam ne dayaali am naka su ma toogee fii tey sëriñ bi si sa wet danaa ko wax ndaxte arrondi euh, euh, communes yi nekk ci arrondissement de bu Sagara Jolof néew na ñun li ñu am am na ñi xam ne amuñ ko ndaxte suñu ministre ministère de l' intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye daa indi fii benn machine bi nga xam ne permanent la fii la nekk képp ki nga xam ne soxlaan déposé d'identité da ngay déposé fii doo dem sagar doo dem daara ba machine bi mu ngi fii loolu nag sëñ bi su fekkee ñaw nañ fii tey di la wax na monsieur le ministre def na liggéey bu baax a baax cër bi nga xam ne jox na ko deyaale cër bi nga xam ne jox na la ko kon naa ñu ngi la sakku ci yow ñaan nga ñaanal ko sëriñ bi tey ñi nga xam ne ànd na ak ñoom lim nañu leen ànd na ak ñi nga xam ne ay ñu ñoo bokk politique bi muy muy suñu suñu mbokk yi ñun ñëpp ñëw nañ fii tey nekk si sa côté muy muy mu ñi xam ne benn bokk yaakaar ki nga xam ne mu Moussa Ndiaye coordinateur APR ñëw na mu ngi tey ànd ak ñi mu àndal ak ñoom bara ak sa ak ñi fi nekk yëpp. sant nañu la gërëm nañu la encore di ñaan sakku ci yow ñaan ñu ngi jëm ci nawet nga ñaanal ñu. ñaanal réew mi yàlla may ñu ndox ndox mu sedd bi nga xam ne comme ni nga doon ñaane ndaxte daaw fii la ñu toogoon ñaan yàlla defal ñu jàmm kon sëriñ bi ci baat yu gàtt yi rek laa laa doon wax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. aleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu sëriñ bi ci turu chef de l'état de son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal. di indi fi nooyam di indi fi ziaram di indi fi ziaru mboolem gouvernement bi yëpp ak mboolem chef de service yi nekk fii si région de Louga bi maa ngi sant bu baax a baax sama borom yàlla dogalee ma ñëw fii tey si Daaru Salaam bi fekk fii sëriñ bu tedd bi maa ngi commencé di sant sama borom lu tax parce que jàng naa fi tey lu am solo te àdduna njàng du wees mukk te njàng rek moo am solo ndaxte yàlla ko mu fonk mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bi mu koy yónnee daf ko ne iqra bismi rabbika allazi xalaq daf ko ne jàngal lépp ci jàng la nekk jàng naa fi tey lu am solo te du ma ko fàtte mukk benn oustaz Cheikh Kébé mii lu mu fi tari doy na téere képp ku xam Sénégal xam histoire Sénégal dégg lu mu wax fii xam na ne njàng am na fii ma rafetlu ko lool nag si contexte bu ñu nekk tey ndaxte xale yi organiser gàmmu bi yore ko maanaam si baatin mooy jeunes étudiants yi ñu nekk tey ci contexte particulier di crise de l'éducation ñu xam ne ñu war a am ay repères war a am ay référentiels mu expliquer moom oustaz Cheikh bi mii kan moo doon waajur sëriñ bu tedd bi toog ni fi tey ak lan la doon junj ak lan la doon defar ñun ñëpp ñu war si vraiment am référentiel am na Sénégal am nañu ay professeur de qualité am nañu ay téere yu tedd ñu ngi fi buñ ko gëstuwoon rek doy nañu xam-xam doy nañu lépp waaye nag ñàkk xam moo tax ñu la daal di dem di jàng ay ñoom Karl ay ñoom Engels ak ñoom seen ak ñoom seen sant yàlla bu baax di sant chef de village bii di Cheikh Ndiaye nee na organiser naa fi CLD bi dëgg la naam moo nañ ko organise sagat walla daara waaye loo xamante ni dafa pare ba pare kay da ñëw rek fekk si mu gën a pare bul sori lii affaire Serigne Touba la doy na lii affaire Gaynde Fatma la doy na sëriñ Abou Mbacké mi toog fii doy na moom kese rek mënoon na organiser li fekk état bi ñëwul waaye nag ku bu fi nekkee yàlla dogal ma nekk fii sous préfet de l'arrondissement de Sakradio mu nekk fii si Daaru Salaam war a organiser lu mel nii li mu mënu may taal sama war a taal sama carburant ñëw ba fi fekk si si woon sama kër këram la ñuy defee CLD bi parce que yelloo na ko moom na ko waaye yemum foofu parce que de pulaar def ne man pël la pulaar def ne béy fu muy xool gëlëm bi di lekkee bugg na fa egg waaye mënu fa xaw ma ndax comprendre li mu bëgg wax fu muy xool gëlëm bi di lekkee bugg na fa lekk waaye mënu fa egg préfet moom a gën a gudd loxo gouverneur moom gudd gën a gudd loxo te wóor na ma jëmm ji toog ni maa ngi ci jégalu bu ko nekkoon tey CRD yu day am waxuma la CRD CRD ci boppam maanaam ñu ñëpp ñu dem Louga wala gouverneur ñëw ba fii ñu organise fii waaye ay mbaaxaayam ak woyofaayam vraiment du loolu moo ko yëkkati moom su mu toog dooy na ko sëkk soxlawu si dara kon ñun tamit en tant que sénégalais représentant de l'état xana kay mu nañ sol suñu dal taal suñu auto liñu état bi dënk ñu dal di ñëw fi fekk ci ko fi waxtaara mo xol ni mu war a ñu ñëw ak ñu bañ yëpp di ci baax parce que fekk na fi ñu baax docteur Falmi ak mi ñu mëna organiser organiser gamu gi dañ leen fekk ci rek kon man amna ci si contenté bu reuy ñew fi tay ci daru salam bi ànd nag ak sama adjoint bi di ko gërëm di ko sant di Amadou Diop di taalibe ci kër gi la bokk ànd ak le représentant du commandant de la brigade de gendarmerie de Daara moo bëggoon ñëw mais xam ngeen tey jamono bi nu mu mel loolu moo tax ñëwul yëbal fii son adjoint mu ñëw mu ànd ak moom ànd ak de ses éléments ma ak sama sécurité mii di Ousmane Ba woone ne li fi am fii si Daaru Salaam ak contexte bu ñu nekk tey bi bu dul seen ñaan ñu fi nekkee tey xool leen Sénégal nu meloon démb ak tey fu ñu tool toll am jàmm ak salaam toog fii am na li ko lal mooy ñaan gi loolu lañ fi ñëw sëriñ di ko sàmp di ñaan nga ñaanal ñu ñaanal chef de ñaanal mboolem Sénégal jàmm am fii si dëkk bi bu ñu fàtte nag ñun amuñu dara lu suñu réew mi parce que ñun ñëpp senegal gi lañu bokk bu fi jàmm amee ñun ñëpp ñu am jàmm ñaanu yàlla bu fi ay amee ñu ñëpp yëg ko parce que Sénégal benn bopp la ñu ngi jublu si ay élections le 24 février 2019 motul 10 mois ñu jublu si ay élections yi incha allahu rabbi ñu tànn chef de l' ñu xam ne balaa nga koy tànn faw nga am sa carte électeur sa carte électeur moo tax nga mun ko tànn ñu voté démb benn loi bu am solo yéen ñëpp dégg ngeen ko mooy maanaam le parrainage. dara la lu ko mooy tey contexte bu ñu nekk tey bi nañ ko comprendre lu am solo la. parce que bu xesee ba loi bi nekk valable ñu validé def ñun en tant que représentant de l'État war nañu ko expliquer njaboot gi tey si tey bu ñu laajoon citoyen sénégalais bu ne indil 65 millions nga nekk candidat mun nañ ci am téeméer ak fanweeru candidat nekk fii si état wu nekk ay candidat pour la l'élection présidentielle waaye bu ñu leen ne indi leen 65 mille sénégalais ngeen soog a nekk candidat gars yi di werante am lu nekk si biir am na lu ñuul si biir dañu bokkante dëgg ku mun nga am soixante-cinq mille sénégalais mun nga am soixante-cinq millions nga nekk candidat am na lu si ñuul te sénégalais yi ñooy fal chef de l'état du xaalis mooy fal chef de l'état bu doon alal mooy fal chef de l'état benn nguur du daanu waaye xam nañu Sénégal toll nañu ci démocratie tolluwaay boo xamante ni ñëpp xam nañu seen ngànnaay mooy seen carte d'électeur population bi comprendre na ko démb parce que kenn génnul dañoo toog seetaan parce que xam nañu 24 février incha allah rabbi dina ñëw te ñoom fu leen neex daañu fa dem voté ji loolu lu am solo la maturité peuple sénégalais bi woone nañ ko mais lii yëpp ci gannaaw jëmuy tëdd ji ñu ngi sàkku ñaan di ñu ñaanal nii Aly Ngouille Ndiaye taxawee ba deyaal yi am machine ñu mun fii inscrit nit ñi tey si tey sama machine mu ngi sagati travail ba 22 heures am ay citoyen toog mënuñu jàll daal di am machine 24 heures sur 24 bu état bi nañu organiser dimanche di rek di di di enrôler nit ñi mais loolu lu am solo la te fii boo fi ñëwee yar ak teggin moo fi nekk mooy taalibe ni ñu toogee toogaay bi xoolal ni mu rafet kenn du ñëpp ñu ngi déglu ñun mënuñu am éducation mënu fa weesu lii mooy éducation kon nag sëriñ bi ci gàttan ñu ngi ñëw fii tey si turu chef de di sakku ñaan. ñaanal dëkk bi ñaanal chef de l'état ñaanal chef d'état nag mooy ñaanal Sénégal parce que chef d'état bu amee jàmm ñu ñëpp ñu am jàmm loolu moo tax ñu ñëw fii effectivement nag ànd naa ak Amadou Assette mii di ko sant di ko gërëm parce que lépp lu mu si waroon taxaw taxaw na si ndax gàmm ci màggal gi muy réussir wax na ma làmp yi wax na ma poste de santé euh, comment dirais-je poste de santé avancé bi wax na ma véritablement service d'hygiène wax na ma lépp waaye loolu yëpp terewul ñu ànd bu si préfet di Amadou Bamba Koné di taalibi Amadou Bamba rek doy na ma ne ko nag man bugg naa déwén incha allah rabbi suñu yàlla maye su jàmm ak salaam fii di Ngilo fii di Samfal fii di Daaru Salaam gii màggal gii ñun defal ay CDD si kanamu amul ay set sow mii mu ne loolu doon problème kon nag man maa ngi koy sant parce sama kilifa la su ma ko ñaanee mu nangul ma ko yéen fa jaar. ma ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu vraiment ñëw fii tey ànd nag ak sama adjoint bi parce que rarement lay déplacé wu ma ànd ak sama adjoint bi damay dem rek wala moom mu dem mais boo gisee ñu ñëw am na firnde bu mag kii di amul jëm taalibe la si kër gi la bokk ngeen ñaanal ko ñaanal ma ñun tamit li ñu yàlla li ñu magsal dénk fii woyof suñu loko ñu mun ko yéen ñaanal nag waa deyaal yi lii amul Assane sumbul waa deyaal yi yàlla eggal ko si jàmm ak salaam nga ñaanalu si nawet bi ñu jublu bi tamit yàlla ma ñuy ndox bu sedd guy vraiment ñu mun a béy si jàmm salaam parce que daaw béy nañ fi ndox amoon na macha allah waaye mujj mu euh, euh, nañu gis si euh, keppaandar gi picc ci ñëw fii lekk dugub yëpp xam naa ne sax sama mbokk séeréer bi ñu si kontaan waaye séeréer kii sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal mbooloo mu ñaanal béykat yi vraiment yàlla defal na si jaww bu baax a baax. jërëjëf Sëriñ Touba. sering abo gaynde fatma mi tok yalna na fi yag lol ci andak wer ma ngi tim rakam ju bax ji di sëriñ asan mbake mu yag fi lol ci andak wer ak njabot gi yeb tud nañ legi soxna may mi toge jotay soxna Mbeen darm ci magal gi kat ku ci wax war nga ko ci delo njukal soxna Mbeen darm fi la nekkon di liggéeyal yalla liggéeyal Serigne Touba sëñ Modou mustapha ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wajuru suñ serigne bu baax bi Abo magal gi ñu koy defee fii ci Daaru Salaam am na menn mag ci dëkk bi wax nañu ne depuis 1959 lañ ko tàmbali di ko màggal mu koy taxaw ba jóge fi kon loolee war nañ ko ci fàttaliku bu baax a baax ci màggal gi kat ñi ma jiitu wax nañ ko fàttaliku sëñ Modou Moustapha la waajuru suñu sëriñ suñu référence sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mii waajuru suñ sëriñ bii di sëriñ Abo ak sëriñ Assane mii ak soxna May mi ma tudd léegi ak soxna Assu ñuy suñu kilifa sëriñ bi féetale woon soxna Mban Darmo fii may yëkkati ay kàddu di nuyu ñépp ci turu sëriñ Abo mii di leen nuyu fii ci Daaru Salaam Darmo ci jotaay bu rëy bii ci bis bii di bisu fàttaliku ku baax bisu jaamu yàlla Serigne Abo ma ngi nuyu ñépp kilifa yi nga xam ne ñoo toog nii ci wetam kilifa diina yi ak mbokk yi nuyu autorité administrative yi ma mën cee jiital la sous-préfet de l'arrondissement bii toog ci càmmoñam yëkkati ay kàddu yi am solo ak délégation bi mu àndal yépp monsieur le maire ak chef de service yi nga xam ne ñoo nekk fii yépp monsieur le maire de Déaly su ma ko nuyoo ci tuuru sëriñ bi nuyoo la naa nuyuwaale naa le maire de Touba délégation bi mu yebal ñu ànd ak moom liggéey bi foofee ca Touba ca lépp di sëriñ bi Serigne Mountakha xalif général de Mourides yàggal na fi yàgg lool ci ànd ak wér sëriñ bi ma ngi nuyu ñëpp bàyyiwul kenn wax naa léegi kilifa yi kilifa diine yi fi teew ak kilifa autorité administrative yi ak autorité politique yëpp xam naa dinaa ci dellusiwaat ci lim waaye ma ngi niyootim bokk yi yëpp ndax fii mu nekk yàgg nañ koo wax sëriñ bi ñépp la jaboote ñépp ñoo gëm nekk ci ginnaawam muy wolof bi muy pël bi muy naar bi muy séréer bi muy yeneen xeet ndax xam nañ ni fii mu fii ñu nekk ay xeet yu bari ñoo fi nekk waaye ñoo ñépp reconnaître nañ ci ginnaaw sëriñ bi mu ngi sant notable yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk beetim di leen nuyu bu baax chef de village bi ak chef de village yi nekk ci commune Deyali yépp nuyu ci jotaay beetim xale yi ak jigéen ñi sëriñ bi nag ay kàddoom du mën a gudd ndax ku muy waxloo bu wax ja baree rek say wax la moom kenn ku ne xam na ne waxam bariwul jëf la gën a mëne liñ ko xamante mooy mu nekk ci néegam bi di jaamu yàlla santaane ak njub la ko fi waajuram mu dëwoon ak rakkam yi ñu topp ko digle liggéey ndax béréb bii ñu nekk bérébu liggéeyukaay la kon euh, ñu ngi dëgmal nawet sëriñ bi mu ngi ñaan ci nawet bi ñoo am nawetu jàmm ya defe naa autorités yi jël kàddu léegi sàkku nañ ko ci moom muy sous bi muy euh, maire bi ñoom ñépp loolu saa su ne ma ci ñaan pour euh, ñu am nawetu jàmm nawet bu ndox mu bari lépp bawan cañ muurloo ko yal nañ ko yàlla defal at bii ñu nekk ci darajey sëriñ Touba ñaan googu la sëriñ bi tàmbalee ak ñaan jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj ku amul jàmm munoo jaamoo yàlla mënoo liggéey kon nag saa su ne sëriñ aboo ma ngi jaan jàmm ñu wax ko ak ñàkk ko ko wax loole li ma leen waxee lim nekk ci néegam bee loolu moo ci jiitu kon ñun ñépp na suñ xel dalaat ndax dëkk bii moom dëkku liggéey la wax naa ko léegi dëkku jaamu yàlla dëkku topp déglu ndigal loolu sous ñii ñépp toog gis nga ni ñu tooge tubar fakalla macha allah dal te ñi ci ëpp ay xale mu jaboote leen jaboote ñépp waaye yar gi ak taalube gi noonu la nekk ci ñoom kon euh, sëriñ bi nee na ma ngi lay gën a dénk euh, njaboot gi ndax wax dëgg yàlla yàggagoo fi waaye gis nañ acte yi nga posé bi nga ñëwee ba léegi loolu ñi nga xam ne mooy fédération bi daayira yi yoroon organisation màggal bi moo Modou Fall mii wax léegi seen kàddu ak chef de village bi ñu àndoon ak moom ak maire bi nga woote CLD bi engagement ya nga ca jëloon ak détermination bi wax dëgg yàlla loolu lu dal xel la lu am yaakaar lañ la ci loolu ca defe naa say kilifa loolu lañ la sant ca yaa ngi ci kon en tout cas xamal ne daal ñun taalibe yépp ci njiitu sëriñ bi suñu xel am nañ suñu xel dal na ci yow xam naa ne war nañoo ànd liggéey lu baree baree bari ci diwaan bi kon sëriñ bi nee na ma ngi lay ñaanal di la sant di la gërëm ak chef de service yi nga àndal yépp ak taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci màggal gi wax nañ ko léegi euh, taxawaay bi nga xam ne waa santé am nañ ko ci taxawaay bi nga xam ne waa sécurité bi ñu ko yor am nañ ko ak maire bi ak yeneen chef de service yi yépp sëriñ bi nee na gis na loolu bu baax ndax ñim yebaloon ñu yor organisation bi wax dëgg yàlla jël nañ kàddu léegi ca bala ñu ñëw ci tànt beetim wax nañ ko taxawaay bi nga xam ne am nga ko kon nag ma lay dénk bu baax ñi nga xam ne moom la njaboote ca amu ci xaj ak seen monsieur le maire

nga ànd ko conseil yi nga xam ne ñoo jóge fii ci Daaru Salaam soxna Bintu Mbàkke di première adjointe ak conseil yépp di diisoog ñoom loolu lu sëriñ bi bég lool la ak ñépp ñu ko jege kon daal ñu ngi lay gërëm ma ngi lay ñaanal tamit wax dëgg yàlla sa mission bii nga euh, di ci am rek saa su ne saa su ne saa su ne ay ndam dénkaane yi ma waxoon nag pour ma wax ko taalibe yi mooy ñu sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey moytu ay tere defe naa sax taalibe sëriñ Abo moom kenn du ko seen ci lu ñuy tere kon sëriñ bi nee na ma ngi leen di ñaanal bu baax ñu am wér ah ajoy adduna setim saa su ne muy faju ñu am xaalis bu bari di faj ajo yëpp ca loolu nag ëmb na lépp am wér njaboot gi am wér délégation kilifa diine yi nga xam ne bu bis bi ameetim dañuy bàyyi seen it yépp ñëw fekk si ko sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm daaru musi di daaru musi di tuuba di daaru salaam gi bokkam yépp maamam di maam Cerno Birahim waa daaru musi gépp ñëw nañ wax nañ léegi délégation bi ki ko jiite ki ko jiite woon waa daaru marnaan ñoom itam ñëw na sëriñ bi nee na mu ngi sant waa Daaru Marnaan yépp waa Gédé Touba Gédé ñoom ñëpp sëñ Aliou Bousso ak ñi ma ñëpp sëriñ bi nee na leen di mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm délégation paas sëñ moor njaay ñu ngi koy sant sëriñ bi nee na ñu ngi koy sant di ko di ko gërëm délégation Kéré Mbay sëñ Ibra Mbay ak ñi àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm délégation mbokk yi nga xam ne ñoo jógee ndaam got sëñ Saliou ñoom itam seen taxawaay rafet na trop délégation Taïf daayira Taïf sëñ Bara Fall moom itam gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a délégation Salaam Saloum ñoom itam sëñ Mor Seck ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla ci poste bi ak ci taxawaay délégation famille Amadou Fatou Ouma sëñ Moustapha Diom Male di bokk ak sëñ Ablaye Diop jiite ko ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci xeñtu gi ñuy xeñtu ci mbokk ak akub taalu fédération bi nag daayira yi liggéey bi rafet na lool ndax màggal gi moom saa su day yokk kon ñépp nañ xam ne ndigal li mooy bu ñu ñaanalee ba pare bu guddee ñu fanaanee def ay zikrulaay fii ci tànt bi bu bët setee nañu waajal déwén màggal gi kon loolu na ko ñépp yóbbaale waaye taxawaay bi wax dëgg yàlla rafet na gis nañ màggal gi fi ñu ko yóbbu ca looloo tim ma mën cee wax ne sëriñ Assane mii toog dañ ko ciy sant di ko gërëm ndax dafa topp ci wetu sëñ bi ñun ñii ñu nekk ak sëriñ bi ay taalibeem waaye saa su ne mu ngi ñuy digal di ñu jox ay conseil mën naa wax ne sax comité d'organisation bi moom mooy premier président bi kon sëriñ bi sëñ Assane ñu ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay maire deali waxna legi sant ñep di ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi taala waaw enseignant yi ñu leen di sant Thank you.